lañ daal di amal ak ñëpp ñu yëngu ci wàllum transport fii ci ndakaar li ni mel nag ñu daal di koy amal tey ngir rek xalaat ci anam bi nga xamante ni nii noonu la ñuy daal di def ngir rek li accident daal di wàññeeku ci réew mi. kon nag tey ndaje bi solo si mooy ñu ñëw fii ci ndakaaru xool lan mooy jafe-jafe yi nga xam ni mooy gàllankoor kaaraange yoon bi gàllankoor yooyu acteurs yi seen bopp wax ko bañ ko waxee ba pare. ñoom ñu joxe ay proposition solution yi nga xam ne buñ ci jaaree yàlla mën a def loolu saafarawu li koy waral daal di bari lool li jëm ci excès de vitesse wala ñàkk respecté code de la route ay tali yi daal di yàqu wala sax comportement ñenn chauffeur yi bokk ci liy andi accident yi. tali bi aussi dafa war wax te tali bi mooy wax ak chauffeur si nu muy waxanteeg moom mooy signalisation ba ci biir signalisation bi mooy transcription wu physique wu code de la route si kaw tali. mooy panneau interdiction interdiction de dépassement mooy trait yi nga gis kaw tali bi mooy panneau inter euh, limitation de vitesse yi mooy panneau yi nga xam ne def nañ si tali bi yëpp loolu mooy kàllaama tali bi tali bu amul panneau rek wala bu amul signalisation dañuy wax tali boobu dafa muuma kon kooku mën a indi danger. Sénégal di dégmat li nga xamante ni moom mooy nawet tax na ba directeur bi di gën a ñaax chauffeur yi ñu gën a mën a moytu. ñu respecter disposition de la route ñu daw ndànk euh, ñu bañ a surcharger oto yi. ñu bañ a yokk paas ñu bañ a donc euh, def sir nombre de passagers euh, ñu respecter lépp li nga xam ne ko de la wax na ko parce que ci feetu euh, diine lañ jëm. nguuru Sénégal faral di jël ay décisions yu bari ngir rek daal di xeex lépp luy accident ci réew mi wante mu mel ni rek day jafe ngir ñu daal di am suivi ci yooyu.